docteur Moro Rege, maire de la commune de Je le jërëjëf tay euh, dafa am leul bu am solo euh buñu dajalé fi mu aju ci wax gestion des ordures ménagères Je lool nak boko da communes mom sax central euh, ñun ñu waajal xam ne compétence bu mën a dellusi ci ñun la ñu ne nañ ko waajal waajal bi nag mooy lan mooy am projet bu mag bu nga xam ne nii waxtaan nañ ci ak ay partenaires financiers notamment la commune de Olibia Nous saluons vraiment euh, le directeur pays au passage euh, ñu accepter ñu le principe projet bi incha allah fii quelques mois dañu ci mën a accompagner ce sera autour de 200 millions mais ngir waajal loolu nag dafa laaj ñu préparer les différents intervenants les différentes parties prenantes formation mairie tout le bureau municipal impliqué dans ko ci impliqué également euh, certains présidents de commission en l'occurrence président commission bi nga xamni mom moom environnement cadre de vie ak surtout également une partie de la société civile il y a le représentant des délégués de quartier euh, représentant marché invité au parce que tout le monde sait que c'est un endroit qui est producteur également de déchets en dehors des ménages il y a aussi le président des CGE Madame Nifi, représente les parents d'élèves d'autres parties prenantes les services techniques aussi desuñu parce que également le chef de service de la régie mi et également le secrétaire municipal et d'autres agents municipaux qui ont également boole nañ ci ah liñ

Nous dañu capitaliser sur le projet zéro décès. manam ñu ko doon wax quartier lan fa doon ak nga manquement ñu pour former les futurs acteurs qui xamni projet nous ñu xol naka yëkëté naka lañ solution euh, mu aussi tamit quatre heures vraiment euh,

Euh, conseil municipaux également même chose de même que les agents techniques euh, formateur aussi tamit dégg ngeen bi présenté au li mu wax depuis plus de quarante ans xam xam non seulement de cee màcc sur le plan académique mais ci li rek lay yëngu am ci nak jaar-jaar bu wér ci commune Saint-Louis kon koku bu ñëwé tay vraiment du une théorie rek lay partager ak ñun mais lu mu dund la ak pratique bu nga xamné ni da fay jakar jankonté ak mom au quotidien mom la ñëw tay pour ñu waxtané ko

indi xaalis aussi également ci commune bi nga xam ne nii day boolewaat lépp également delloowaat ko ci population bi en terme d' investissement donc ci gàttal daal mën nañu daal loolu moom mooy illa lël bi nga xam ne nii dajal nañu ko fii ci commune Ndiarème Moulay ànd ko ak tous les acteurs ci sant ñëpp di gërëm ñëpp di joxaat rendez-vous tout à l'heure en espérant que dinañ amaat le même engouement dinañ amaat la même détermination pour ànd ak le cet expert là ñu gën a mën a saytu davantage la grande problématique qu'on appelle la gestion des ordures ménagères je vous remercie. appel bi teel parce que eggaguñ ci population appel bi moy niñ ko tambalé rek ñu fexé ñu wéyale ko nonu ba acteurs yi fi nekk euh, mën cee téye li ëpp solo benen bi nak moy bu ñuy séminaire bi ñom daa ñu leen wax li ñuy gëna xaar ci ñom moy ku ci nek ñu fexé naka lañuy ñuy pour intégrer les différents conseils de quartier pour d'abord euh, dupliquer la formation, en conseil également vulgariser un peu et maintenant mettre en place une cellule préparatoire pour maintenant vraiment euh, mettre en œuvre, opérationnaliser le grand projet bi nga xam ni moom président de xaar. Fall président commission environnement mairie Ndiarème Limamoulaye Guédiawaye. tey moom wax dëgg yàlla kontaan rek vraiment di gërëm monsieur le maire ci xalaat bi mu am ndax euh, jamono content. barki dem dañuy setan ben way bu jaay fa ko jaay mu ne moom daa jaaxle ñu ne ko lu tax nga jaxlé mu ne moom dafa sedd bi da tambali mois de novembre ñu dem commandé ji seen fa ko jaay té buñ ko commandé ba légui sedd amul ah ñu ne lu tax sedd amul ñu ne parce que changement climatique mo am changement climatique liko indi moy production de déchets ñom seen ainsi de suite ba tax jaw ji yaxu ba ji ni euh kenn xamatu ci la ci tangor la nek wala ci seddaay la nek

loolu nag dañ koy santé monsieur le maire diko santé le comme euh, monsieur Guèye tamit momi euh, améliorer projet bi euh, ne set wecc bi ba def ko seetal wecc sa commune xoma waaw té di ñaan yalla rek ni ñu tàmbalee comme ni ko maire waxee ñu continuer nonu ba vraiment population bi yeb adhéré ci cause bi vraiment ñu réussir suñu suñu suñu mébét. waaw premier jour bi moom macha premier jour bi bon y a eu des des absences mais mal alhamdulilah rabbi alamin ñu si bëri ñu absenté ils se sont fait représenter. Il y a le, le, le Madermignan, qui les maisons maison des handicapés, Amnou Kourove est représenté. Amna ASC, Institut, association, Amnou Nul est représenté. Euh, corps, bon, à part l'imère, le, le marché. Euh, te te xam naa ne peut-être ay empêchement là mais vraiment ñi fi teew mat nañu sëkk li leen doon doyee te xam naa ne bi mu fi jógee bu ñu ci population bi mbir mi dana gën a yaatu incha allah waaw premier jour bi incha allah ñu ngi sant yàlla bu baax baax di ñaan yàlla nag euh, mu continuer ni wala mu ëpp ko daal mu jëkk bi ñii daal bu ko continuer dana baax incha conseiller municipal en même temps man maa nekk président commission aménagement du territoire et cadre de vie au niveau de la commune de Ndiarème Limamoulaye. vraiment ñu ngi remercier monsieur le maire si initiative bu importante bu mu def pour organiser séminaire bi nga xamante ni ñu ngi siy la gestion des ordures ménagers. et wax dëgg yàlla tey jii formation bi ñu jot a def euh, ce matin c'était vraiment très intéressant parce que participants yëpp ñu am niveau parce que liñ fi waxtaanee mom je pense que à l'issue de ce séminaire wax dëgg yàlla Guédiawaye euh, plus précisément la commune de Ndiarème Limamoulaye dinañ am benen xar kanamu manam ni nga xamantani lañuy topato wé mbal mbalit yi nga xamantani mo moo nekk ci kër gi parce que wax deug yalla lool lañ fi té y a des initiatives très importantes qui ont été prises et wax dëgg yàlla xam naa ni dinañ si mën a fexe ba nga xamante ni nit ñi après dinañ wàcc sur le terrain sensibiliser les ménages ba nga xamante ni ordures yi nga xamante ni mooy nekk si kër gi dinañ am beneen façon gestion boo xamante ni dinañ ko doxalee te bu boobaa kër yeeg commune beeg yëpp dina participer au développement de la gestion de la commune si wàllum gestion des déchets daal. alors tey jii li ñu fi indi mooy euh, commune wax euh, de Ndiarème Limamoulaye dañoo bëggoon ñu jàpp ñu jàppale leen ci former ci affaire lu jëm ci affaire mbalit xam nga niñ ko xamé xam nga mbiru mbalit euh commune ñoko yor donc euh, tout dëkk bi commune ñoko yor donc mais il faut donc ñom commune xam niñ ko wara yoré donc lolo taxone ñuy def formation bi pour que ñu xol pàcc yi nekk ci bir commune bi mu nekk ñi nga xamné ñoy élus mu nekk techniciens mais aussi mu nekk population bi mu nekk bàjjenu gox association de génie. yi ñoom ñu dajale leen fii pour waxtaan ak ñoom pour gën leen xamal lan mooy mbalit ak nañ ko war a gérer ba nga xam dina effectivement dëkk bi dina set donc lolu mo mo ñu indi won fi donc euh, te am nañu yaakar né effectivement commune Ndiarème Limamoulaye ak projet bi mu am ni donc euh, ak formation bi ñuy tax ëllëg dana tax ñu am am beneen gan ñu am benen taxawaay bo xam dina gëna tax commune bi gëna set parce que loolu lañ ci loolu lañ ci jublu té am nañ ci yaakaar té moo tax tey ci suba ba légui ñu nekk di discuter ci ni ñu wara gérer mbali ñan ñoko wara def yooyu yeb dinañ ci ñew ak nu ko wara défé ak lan lañ ko wara défé ak yan moyen lañ ko wara défé donc loolu yeb dinañ ci ñew donc mu nekk lo xamné am nañ yaakaar né buñ ci joggé dina tax euh commune bi gëna am benen taxawaay xam lan moy lan mooy cëram n'est-ce pas ci ci affaire mbalit nan la ko war a doxalee ak kum ko war a doxal ak ak ak ñan la ko war a doxal ak donc loolu surtout moo ñu fi gën a indi. alors en tout cas li tàmbali suba wan nañu ne euh, maanaam ñii teew ci salle bi participants yi xam nañu lan mooy mbalit mais xam nañu aussi nan lañ ko war a gérer donc donc ñun dañuy fàttali rek en réalité mais. en tout cas y' a une une bonne participation en tout cas am nañ taxawaay boo xam ne nañ né ñom xam nañu mbalit te bëgg nañu aussi mbalit mi ñu gérer ko ba nga xamné dëkk bi dina sét donc ci suba légui lool lool daal luñu luñu gis ci taxway participation participant docteur Alicine consultant formateur en management des collectivités locales. Alors, cette formation que nous, en train, que nous, sommes en train de dérouler au niveau de la commune de Ndiare Limomoulay porte sur la gestion des déchets. Euh, au niveau de cette commune. Donc vous savez que la gestion des déchets est une compétence transférée au collectif local par les différentes lois sur la décentralisation depuis la loi de, 1996, euh, donc confirmée par l'acte 3 de la décentralisation, donc qui confirme, la gestion de l'insalubrité et des déchets au collectif local. C'est-à-dire que les, les collecteurs locales euh, ou collecteurs territoire actuellement ont l'entière responsabilité de gérer les déchets au niveau de leur commune respective, donc de leur territoire communal. Euh, c'est vrai qu'au niveau de Dakar, il y a la présence de l'unité de coordination et de gestion des déchets qu'on appelle l'ICG, qui est en train de travailler euh, le plus souvent à côté des collecteurs locales pour effectivement apporter des moyens, notamment dans le cadre de la collecte de l'évacuation des déchets au niveau du centre euh, de Mbobos, mais en réalité, donc, c'est une compétence des collecteurs locaux. Aujourd'hui, l'important de ce séminaire est de conscientiser, n'est-ce pas, euh, les élus municipaux, les agents municipaux, n'est-ce pas, et les acteurs communautaires tels que les Badjanogor, les représentants des femmes, les représentants des jeunes, n'est-ce pas, sur leur rôle et leurs responsabilités dans le système de gestion des déchets dans la commune pour permettre, donc, dans le cadre du projet euh, Settleweg, de pouvoir effectivement prendre à bras le corps, n'est-ce pas, la problématique de gestion des déchets en rapport avec les services de l'État. Je pense que, comme on dit, quelqu'un qui est conscientisé, n'est-ce pas, dans son rôle, l'assumera de manière beaucoup plus effective que quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, du coup, donc, cette formation participe, n'est-ce pas, à mieux renforcer les capacités, n'est-ce pas, de ces acteurs à la fois institutionnels et communautaires, donc dans la gestion des déchets pour leur permettre donc une meilleure prise en charge. Donc c'est vraiment l'objet de cette formation que effectivement la commune Ndiarem de nous a confiée, n'est-ce pas, pour euh, échanger, discuter, mais surtout pour mieux les outiller en matière de gestion des déchets pour pouvoir effectivement sur le long terme pouvoir se positionner comme une commune propre.